booy booy bëre amateur yi wala rawatina say supporter nga xam ne yow rek la ñuy bëggee gis nga sànq bi daane gars yi mu mel ni ordinateur gars bëgg si seen xol. waaw comme li may wax bu Boucar man moom xam nga aw ma fekk nit ñi quoi vraiment. amatoo looy privé nit simple wax dëgg ne yàlla lamb ji moom euh, mënu maa fay nit ñi quoi vraiment parce que gis naa ma bëggee. booy ñi may bëre lii. samay booy lañ samay rek lañ dañuy bëre ne fu ñu ak samay booy lañ gis naa sax fu ma traversé ñoom daf may nii kon man daal lii nii dañuy compétir mais balaa ñoo gën a kontaan mbër yëpp ñëw mbër yëpp wàcc. ñëw daa mel ni poids Louré ñëwaguñ nag. Ah? daa ordinateur nag sa combat dégg naa ne ñu ngi ñu ngi koy dox mais problème adversaire am laa dégg. waaw ba léegi de ba léegi de taxawagul. mais wooteel fii gars yi jël est ce que du ma bàyyi làmb simple bi. non ëpp naa am. ah ëpp naa am dama am problème quoi. mais maa lay bëggee. waaw mais maa ngi bëggee ñëpp kar maa lay bëggee bu baax yow. waaw di bëggee Sénégal ñëpp di bëggee sama supporters yi nekk Sénégal ak du réew. waaw waaw maa leen di bëggee bu baax. kontaan naa si ñëpp. waaw borom soob borom soob borom caaw la borom agan borom caaw. waaw borom caaw. mais ziar naa la. da lay ziar. Amara. waaw waaw Bougar. Amara na la gaay bàyyi xel. waaw Mbadou. nga la gars yi bàyyi xel. mbaa du ñu parce daa mel ni da ngaa décidé. waaw waaw non si lamb laa bokk. si ah. lamb laa bokk. affaire yi moom li may wax rek gëm-gëm la rek ak liggéey. waaw très bien très la quoi. lan ngay yëg nga war a def final. non sentir lu bëri quoi. Ah, ah. waaw mais maa ngi bëggee sama grand Mame Birame Ndiaye. Mame Birame Ndiaye da ciy lu bëri quoi. ndax li yëpp moom la quoi. bilaay maa ngi bëggee Mame Birame Ndiaye. nga war a a la moom. boo war a moom final lan ngay yëg. waaw ndax instant gars yi dañoo mbër mag mais mbër mag amul comme sa bopp moo fi nekk dañuy bëre lu waaye amul xam ne la waaw. kon doo ko rek. ñi lay bëgg. non di sant ñëpp sama gars yi ma àndal fii fii lépp maa ngi leen di bëggee bi laaw la ndax lii yombul quoi xale bu noo am lii du jërë bàyyi xel kon kon yokkal góorgóorlu. waaw non loolu la quoi. yokku cere dolli ñe. essai pour la pour man quoi pour sama ginnaaw moo tax may la bonne chance. ok internetu wasaare lamb yi ñu ngi leen di nuyuwaat ginnaaw bi ñu leen nuyoo ci bëccëg fii ci terrain gaal gi ñu leen di fàttali ne Jax Wrestling production structure boobu nga xam ne Jax moo ko jiite ñoom ñoo fi organisé gala boo xam ne 1 million la ñu tegal mbëri ci biir gala bi nag. mbër yaa ngi fi woon champion yaa ngi fi woon waaye ci biir champion yi ordinateur mi ngeen jàkkaarloo moo dem final ak CFA mbële may ñoom ñaar ñoo dem final muy final boo xam ne final bu neex la ci biir final yi ordinateur en rouge CFA en rouge ordinateur moo daan rajaxe en demi final CFA moo daan Boy Sadio en demi baa ngoog diggante ordinateur ak CFA ordinateur a ngi di lag CFA ngi na ca wàlla ndeysaan lan lay ca tànk ya dibb na tànk ba association des religieux On passe à la présentation <laughs> moo yëkkati loxoom yi noonu. Ordinateur moo yëkkati loxoom noonu. Ndeysaan. Kàmbar na ko moom CFA. ordinateur à la position initiale dafa am foo xam ne balaa arbitre di siffle fa lay dem taxaw yëkkati loxo ya arbitre bi xool ndax di woowut laalo wala menti la too wala luri boobu arbitre di lamb looloo ko waral parce que le nga niin loolu anti jeu bokkul ci jeu bi boo niinee rek dañ naan la demal nga fomp parce que bokk ci moo waral arbitre di làmb mbër yi arbitre sifflé na diggante CFA ordinateur ordinateur moo sëgg ci ay tànkam wan ñu ndijoor ngemboo ngembu lu xonq CFA moom mu nga jël loxoom teg ko ca cuisse ba ngemboo ngembu lu xonk féete bu dee arbitre bi moo wàcce am ndoddam noonu daal di wàcce ay tànkam xañ leen image ordinateur jëm na siifi ko lu nar a gaaw ordinateur seefa ndaw nar a gaaw ay arbitre ay arbitre ay waay mbokki arbitre bu ngeen ko séenee bi pel leen ma ko fi mu toog baaxul danu lay xaañ nga jóg arbitre dañ lay xaañ nga jóg fi nga toog daa baaxul oh. arbitre oh. arbitre la ngay yàq xamoo ko arbitre fi mu toll nii àdduna yëpp yow la nuy seetaan aujourd'hui 23 octobre ici au terrain Gaal Gui on est en de suivre la grande finale entre Ordinateur Yalla Sinik et CFA deux lutteurs qui étaient annoncés favoris qui ont honoré leur engagement depuis le début. ordinateur CFA arbitre wàcce na arbitre wàcce na leen nee leen yéen ñaar li ngeen di def anti-jeu la bëre leen ko rek ci fair play ñëw ngeen ba final neexal leen ko mu neex que le meilleur gagne <laughs> arbitre sifflé na génn seen diggante ordinateur a nga suuf sëq na benn loxo ca lan lay def da koy jéem a fàqet fàqet na ko fàqet na ko war na ko ndombo CFA rëcc na dañ lay tëral ordinateur tëral na CFA daan na ko ordinateur daan na CFA et c'est ordinateur daan na CFA c'est terminé